loolu itam li ci gën mooy ñun suñu asraar bi nga xamante ne nii moom la ñuy def muy ay secret yoo xamante ni yor nañ ko nëbbunu ko képp koo xam ne am na itte ci turu yàlla ak fu mu mën a nekk ci àdduna waxtu ci ci ko ak ñun danañ ko ci laabiire bam xam ko bu baax ndax dañuy wax ne xam-xam eh, bu ko suñu borom dénkee ab jaam mook am am ñooyam alal ji la suñu borom dénk nga ciy lekk di ci naan te dimbale woo ci kenn ci yow rek lay yem xam-xam itam yàlla dimbale ñu ci bëgg nañ cee baaxe képp koo xam ne ko suñu borom bind nga ci kaw suuf ba tax ubbi nañ suñuy buntu fépp ci àdduna képp koo xam ne am na lu ko jaaxal ci wàllum aajoom bu jokkoo ak ñun insha allahu rabbi di leen ko ci laabiré ba suñ borom bi subhaanahu wa taala defal ko la nga xam ne moo taxoon mu am yaakaar ci ñun képp koo xam ne itam bëgg ngaa jàng xam-xam ak fànn bu mu mën a doon ci kàttanu suñ borom li ñu suñ borom dénk ci xam-xam dinañ ko bokk ak yow ndax sëriñ bi dafa jàngale woon ne xam-xam nit de waru koo jàng ngir puukarewu nit war koo jàng ngir daraja da koo war a jàng rek li wajhillaahi taallumal xilma li wajhillaahi doonal mafashaati wat tabaahi kon ñun dañuy sàkku xam-xam rek ngir jëmmi suñu borom ak tamit di dimbale jaam ñi ci seen aajo yi nga xam ne ñun ñoo leen ci tane te amul benn tarixa wala benn nit boo xamante ne dana ñëw ci ñun te aajoom duñ ci taxaw ndax dañ koo jàngaat ci sëriñ bi mu ne fala tahuddu man raaytum yuxruju laa ilaha illa allaahu képp rek ñun boo ñëwee danaan jëflante ak yow insha allahu rabbihi bu soobee yàlla am nan fi itam ay tur yoo xam ne ne nii aajo ju doomu aadama mën a am ci kaw suuf ak lum rëy rëy bu ñu ci jokko ak yow rek insha allahu rabbihi yàlla dana ci def tawféex bu soobee yàlla kon nag foofu la ñuy wàccee kàddu yi xam naa numéro yi dinañ leen ko officiel ci ban écran bi insha allahu rabbihi bu soobee yàlla ngeen doon feggoog seen bokk mbokk Seydina Ousseynou borom saxaada wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala